ndaw ñi gën cee góorgóorlu bu baax a baax. Nous appelons toute la jeunesse à davantage à prendre du saintam et de ses valeurs pour leur bien et pour le développement de ce pays. Cheikh Modou Kara ne cesse de le rappeler. Cheikh Ahmadou Bamba est une référence en la matière. ndax euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul moo yor ngën gi développement. projet de société bi nga xam ne moom wax na ko ci Matlabul Fawzeyni. Il a évoqué le projet de société de Matlabul Fawzeyni et il souhaite qu'on se projette sur ça non seulement au Sénégal mais en Afrique. ndaw ñi ngir ñu gën cee tënku xam ni réew moom xiir ak ngaayoo defaru ko déedéet. et nous appelons la jeunesse à l'adhésion. Il n'y a que le dialogue et la paix sociale qui peuvent nous amener au développement. bonne parole loolu la woo ndaw ñi.